alors affaire Sweet Beauté Sweet et Parfum ñu bàyyi euh, Pape mu dikk ci. waaw man de tey nga xamante ne moom jël pour waxtaanee ko mooy lu jëm ci euh, audition capitaine Seydina Omar Touré. Mhm. ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Baye Mbaye MC Niass. capitaine Touré deglu nañ ko altine. Mhm. kenn ki ci topp déglu nañ ko mardi. Mhm. donc mu nekk audition yo xamante ne ça entre dans le cadre enquête investigation judiciaire yi nga xamante ne doyen des juges mi ngi koy def ci dossier bi. Euh, laata loolu nag amoon na leneen lu ko jiitu amoon na yeneen audition yoo xam ne amoon na fi. Mm-hmm. amoon na yeneen confrontation yoo xamante ne amoon na fi. Mm-hmm. donc man li may njëkk leeral mooy par rapport à l' audition de capitaine Touré. ndax ñu bëri yaakaar nañu ne woo giñ ko woo. c' pour euh, def enquête pour daaneel completeur yi wala pour xam ñan ñuy comploteurs yi mais en réalité c' était pas ça. képp ku yaakaar ni capitaine Touré dañ ko woowoon doyen da koy juge da ko woowoon pour xam ñan ñooy tax ci complot bi. Mm-hmm. ngi sa bopp. ah ndax ñaari mbir bi si jiitu mooy capitaine Touré liñ ko doon dooyee mooy ci dossier bi Sweet Beauté mhm. dafa am luñ ko ci jiiñ dafa am ko ci jiiñ waaw mooy maanaam ni moo génne woon PV yi waaw donc loolu lañ doon xool ndax am na waaw wala déet mais lu jëm ci beneen wàll gi dikk guñ ci ak moom ah bon ndax li wara loolu mooy ñaari mbir bisi si jiitu mooy doyen des juges ay pouvoir am dafa limité comme doyen des juges juge d'instruction la rek mhm. parce que euh, euh, doyen des juges ce n'est rien d'autre que xam ne sax dañuy dégg lan doyen des juges mais xamuñu ko yaakar nañu sax moy magistrat bi a ki qui ont parce que buñ diw doyen de l'humanité wala doyen nanga moy ki fa mais en mhm. réalité le doyen des juges n'est pas le magistrat le plus âgé 10 mhm. cabinets d'instruction le am doyen des juges moy ki occupé premier cabinet mhm. même bu doon le plus jeune magistrat le premier cabinet bi dañ koy doyen des juges donc doyen des juges c'est pas par rapport à l'âge doyen des juges nak moy comme un juge c'est un pouvoir faire limité xam nga procureur amna pouvoir def li ñu auto autosaisir mhm. mais doyen des juges mënu ko doyen des juges liñ ko saisiré dossier biñ ko jox mhm. ci loolu la mëna a mënul def ci enquête leneen tant que joxuñu ko beneen dossier wala beneen plainte wala beneen réquisitoire boo xamante ne day dugal fee yooyu d'accord doyen des juges tey bu doxoon ci mbedd mi gis nga kuy rendi nit hmm. agresseur buy agresser nit di rey nit wala di rendi nit wala kuy kuy kuy viol wala kuy def nangam sangam hmm. munu ci dara yonam nekku ci munul auto li mën moy soit mu calamer commissaire wala mu kalaame porter ko à la connaissance du procureur ak yu mel hmm. donc pour en revenir à dossier Sweet Beauté fiñ ñu toll nii doyen des juges limi def enquête moy lu jëm ci walum viol mais lu jëm ci walum complot bi orienté gul enquête am foofu munu ko def c'est la loi qui le dit le juge d'instruction est saisi en fonction des faits moom le mhm. juriste wax le juge d'instruction est saisi in rem maanaam faits yi ko saisiré muy plainte bi ak réquisitoire bi mhm. loolu la mën a def meunta def lenen tant que amul benen mbir bu ko saisir par rapport ak lolu mo xam procureur par exemple meuna def enquête am nag dem ba ci bir gis ne kat viol bi am na ab complot bu ci am. Mhm. mais dans ce yoon mooy ko mu tëb rek di ko orienté enquête commencé si loolu faw mu dem wax ko procureur. d'accord procureur saisir ko ci li ñu tuddee réquisitoire supplétif yoon mhm. dafa am nu muy doxe mhm. maanaam juge bi. xam nga ni ñuy am séparation des pouvoirs entre exécutif législatif ak judiciaire mhm. ci biir justice am dafa am séparation des fonctions de poursuite de d'instruction et de jugement mhm. lépp lu jëm ci wàllum nit procureur moo koy def mhm. léegi nag doyen des juges def bu parce que plainte bi bi Adji Sarr déposé mhm. wàllum complot nekk ci réquisitoire introductif bi saisir doyen des juges nga xam procureur moo ko saisir mhm. teesu complot bi plainte pour dénonciation lu jëm ci complot bokk ci donc bu mhm. demee ba ci biir gis ko li mën a def mooy muy yëgal ko procureur procureur dugalaat lu ñu tuddee requisitoire supplétif dans ce cas là doyen des juges di mën orienter enquête vers les qui ci li nga xam donc loolu loi moo ko tënkee noonu moo ne juge d'instruction amul pouvoir auto saisir. maintenant puisque viol lañ ko saisiré mënta dem ci leneen lu viol d'accord fii léegi xanaa bu demee gis leneen procureur saisir ko kat ci feewu lu jëm ci mais Pape ñun sama genre gi fan yi yëpp ñu ngi gis que ñu ngi convoqué ay Baye Mbaye MC ñu ngi convoqué capitaine Touré je me disais que kon par extraordinaire war nañ mën a convoqué Mamour Diallo war nañ mën a convoqué maître Dior Diagne alors que ñun dañuy euh, la majeure partie des Sénégalais disons wala ñi nga xam ne tey jii ñooy euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko day wax ni que ñooñu dañu bokk ci comploteurs yi. Mhm. donc à vrai dire ñooñu mënaguñ leen convoqué parce que plainte bi pour viol de visé mais pas pour complot. waaw c'est-à-dire que bu doonee des jus bu ko neexee sax mën na leen a mën na leen a convoqué mais seen convocation c'est strictement ci wàllum viol bi ndax viol bi am na waawul déet ci wàllu googu lañ leen di tudd doyen des juges ci gàttal mais Mamour Diallo ci wàllum complot bi lañ koy tudd waaw mais léegi doyen des juges moom balaa moo mën a wax ci wàllum comploteur yi mhm. faw procureur dugalaat lu ñu tuddee réquisitoire supplétif pour que mu mën enquête ci wàllum complot loi moo ko tënkee noonu moo ni bu li plainte bi la jox walum viol la wax mënoo mhm. dem fenen fudul viol loi moko ko tënkee pour que nga mën a génn viol bi pour dem ci xol ndax ak complot bi amna faw procureur dugalaat benen réquisitoire mhm. loi moo tënkee non doyen des juges motax buñu nax suñ bop mhm. ça ne veut pas dire que wona nañuy ñi rek ñu japp ne kat dem na ci complot dugaguñ fofu de même bu dee amna ci doyen des juges mënu fa dem tant que procureur dugalul réquisitoire supplétif bu koy may mu enquêter ci lenen luddul luñ ko saisir parce que juge d'instruction doyen des juges amul pouvoir auto saisine bi procureur am ak ñenen ñi wàllu ci wàllu complot nag. wala plainte yooyu xam nga jotagu doyen des jotagu ci. Mm-hmm. donc moo tax fi ñu toll nii leneen li ñu war a def mooy. Mm-hmm. Euh, dugalaat moo tax faw mënta ñàkk ñut parce que firnde yi wane ni lii ab. conspiration am na ci complot mm-hmm. xam nga firnde yi am na moo tax faw ñu defaraat beneen procédure nag boo xamante moom moo jëm ci wàllu googu mais fii ñu toog nii nii nii nii gis nga gis nga la ma waxoon bi passé rek laay waxaat ci dossier Sonko bi mm. gis nga gars yi de bu ñu yaakaar nit dina yombe noonu ñu ñëw xëy yeewu ba un beau jël noo lee teg leen ko ci table bi du yombee noonu de. dama leen ni même bu ñu gisoon luy seetal Ousmane Sonko duñ ko def. du yombee noonu de. Ah, ah. donc il faut xam nga xam nga xam nga mbir bu amee. gars yi leen di wax li ci loi wax li meuna nek ak li mënul nek mhm. mo gën ñu ñu leen di révélo ñu dem ba jëmmi jamono gis leen naan non non non journalistes yi chroniqueurs ñoo ñu gëmloo won li man dama leen di wax li loi wax li meuna ne ak li mënta ne juge d'instruction auto saisine mhm. bu weesoo plainte bi ko bi ko jox mhm. nga xamni viol rek lay wax meunta génn ci viol bi di enquête ci leneen tank jotul benen réquisitoire wala benen plainte buy wax waxu complot léegi man dama bëgg laaj benn laaj moy alors audition bu capitaine Touré mom capitaine Touré est-ce que il a confirmé que le PV bi mu biñ koy présenter bobu mom le signer moko def wala du Bobu, wala qu'est-ce mhm. yan lan mo ci jotta a comme information. xam nga en réalité audition capitaine Touré audition sax amu fa. Mhm. parce que mom bi mu ñëwee dafa xamal euh, ki nga xamante mom moom mooy Jébé ne ko ba muy def enquête bi PV bi jamono yoy dafa nekkoon officier de gendarmerie dafa nekkoon enquêteur mais digënté bi dañu ko rajé génnee ko ci bokatu ci donc mu ne waa bi kat mom fi ñu wax ci dossier mënu sax déglu comme témoin parce que jamono yoy ah, police enquêteur la won mo defoon enquête bi te fi toll ni nekkatul amatul qualité bobu ak qualité officier gendarmerie bi nga xam mom mo doon def enquête bi mm. mais joxnako mbooleem li nga xamante ni moom mooy firnde yi nga xamante ni par exemple euh, ay firnde muy sortie yi mu jotoon a def di wax ci dossier bi mhm. jëlaat na yooyu yëpp joxaat ko ne ko la ma waxoon fii lay dëggalaat maanaam kon dëggal na ni PV boobu noonu moom moo def enquête bi mhm. la ne ci PV bi loolu la def ci enquête bi ak lépp loo xamante ni mës nga dégg ne capitaine Touré wax na ko rek mhm. boole na ko ci firnde yi nga xamante ni jël na ko jébal ko ki nga xamante boo doyen a été très bi ñu ko defal nii dañ ko bëggoon gasal pax c'était pas pour les beaux yeux de de de défense de pour def su euh, ko bëggoon gasal pax mais il a été assez avisé pour détourner li nga xamante mom tentative mhm. parce que amone nu mu doon demee sori ci wax ji. Mhm. nangu yenn mbir yeek yoy noonu. manam touma yi koy toumal ni mo génne woon PV ak enquête beeg yoy yëpp day daal di firndewu day daal di nekk loo luy am la. Mhm. motax tax ko won pour def lu neex défense certes défense demander nañu ñu convoquer capitaine Touré.

Hmm. même boo gisoon lu bees ci dossier boo gisoon ni rey ne ci biir dossier bi am na ñu ci rey sax loi ne na ko mënoo ci def enquête. il faut que ñu amaat leneen beneen plainte bu la ci saisir beneen plainte bu ñu dugal wala réquisitoire supplétif pour que mu mën orienter ci leneen loo xam découvrir na ko bu gisee un dossier dans le dossier xam nga c'est bien possible mu gis un dossier dans le dossier mm-hmm. mais même bu loolu amee loi da koo tënk ba ne ko mënoo def autosaisine doo tëb rek ne non damay enquêter ci comploteur faw procureur dugalaat réquisitoire supplétif wala mu am beneen plainte boo xam avocat Ousmane Sonko dañ ciy dugal di dénoncer complot yi pour que mu mën a orienter enquête ci wàllu boobu noonu mën na demander le procureur sinon mu defal ko note pour wax ko ne que maam naa ne lii mën faaw ma wax ci ci biir waaw mën na ko ne kat ba ma defee sama enquête ah man kat gis naa lii ak lii gis naa ni kat viol bi tax na suuf de gis naa ni lii ab complot la de léegi procureur dugal lu ñu tuddee réquisitoire supplétif ah d'accord maanaam pour s mën saisir ko puisque moom mënul amul doyen de juge amul pouvoir autosaisine mm. procureur si boppam moo koy saisir ci loolu nga xamante ne moom mooy mbir mi pour que a léegi nag ratisser large a orienter enquête am ci yeneen yi nga xamante ne am na ci léegi nag li may laaj foofu avant Aïcha ngay ndax procureur dina def loolu waaw wala de parce que li leer ba leer mooy teesu complot bi doyen des juges gis na ko mhm. firnde yi wane ni ab complot ak conspiration am na ci li leer ba leer mooy gis na ko mhm. maintenant est ce bu ko waxee procureur procureur dina ko may te jël yoon mu mën a orienter enquête am foofu tout en sachant que bu ñu ko defee dina am ponkal yuy daanu te procureur ci ministère de la justice la bokk ministre de la justice patron Euh, keneen aussi dem na euh, euh, wuy MC apparemment aussi yor des des choses très complémentantes peut-être bu ko ci juge bi dina na que ni viol amul est-ce que y am trop trop trop trop ci viol li tax mu am solo mooy. Euh, fi ñu toll ni boo gisee enquête bi commencé gudd ak yooyu noonu doyen des juges dafa jotagul ab preuve bu mën a yóbbu Ousmane Sonko pour ñu àtte ko ndax li li li nga xamante ne ñu bëri nag bëgguñ koo dégg. te loolooy dëgg. mooy lan mooy amul preuve. li ngay naan Adji Sarr yorul dara. Mhm. c'est que loolu moom. loo loolooy dëgg. gars yi te nanguñ ku ko wax te loolu nag. xam nga xam nga parfois sax man parfois ay nit woo ma ne ma. yow lu arrangé Ousmane ngay wax. doo wax mukk lu arrangé Adji Sarr. Mhm. parce que dama ko gisul. wallaahi su ma gisoon lu wér ne ma ne la lii mën na cee toog mën na koo brandir dama koy wax. Mhm. mais gisuma ko. léegi pour souci d'équilibre qu'est-ce que vous ma inventé ay mbir di wax lu arrangé Adji te gisuma ko te amul ci dossier bi. je ne le ferai est-ce que pour euh, am ay preuves yi nga xamante ni MC am annoncé woon na ko est-ce que jaroon na ñu koy entendre est-ce que defoon réquisition téléphonique tey jii euh, ça ne suffirait pas pour am preuve yi nga xamante ni MC waxoon na ko aussi yàgg nga wax ci plateau bi que affaire de audio vidéo wala appel est-ce que mën na nekk preuve devant le juge tey jii est-ce que loolu mën nañ ko certifier xam nga juge bi li tax mu woo ko mooy euh, pour mën a xam preuve yi parce que preuve yi mën naa bañ a yem rek ci mbirum téléphonique parce que bu fekkente ne ay audio la moom moo ko yor ci clé USB am la ko jox la ko yor donc loolu même boo defee réquisition Sonatel mën na ko mën na ko bañ a bañ a bañ am donc looloo tax mu woo ko mm. déglu ko laaj ko ci mbir mi mu indil ko mbéelum firnde yi nga xamante ne moom la yor te jox na ko firnde yi moo tax comme li Aïcha laaj ni mm-hmm. effectivement moom le fait que ñu déglu ko lu am solo la ci dossier bi dina leeral lu baree baree bare ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy dossier bi donc maa ngi leen ko don wax leg bo gisee enquête bi di gudd ni gaay di raté sélan c'est parce que maa ngi lay wax né li nga gaay yi di bañ a dégg Adji Sarr yorul dara mhm. wul benn preuve mhm. bu ma gisoon lu dëgër lu mu lo xamanteni ni na ci fi lay tok wax ko mais dama gissul lenn lo xamanteni lu dëgër lu mu té mhm. wala lu mu japp lu mu waxuma sax kon naa ne Ousmane Sonko de luñ ko mëna yobbo yóbboo procès feeñagul ci dossier ci enquête bi d'accord luñ mëna yobbo Ousmane Sonko pour ñu atté ko feeñagul ci enquête bi mais pap bu fekkee aussi euh, li ñuy avancé que Adji dafa avoué que euh, dañu ko sant mbir mi ba tudd na tur. bu mhm. fekkee li ñuy wax ne moo am ci audio yooyu MC am euh, tudd na ne moom ko jëf ju mhm. wax Ousmane Sonko pour ko image am. Mhm. et su fekkente ne euh, loolu wax rek. mu ci est-ce que am nañ droit teg ne dossier bi. waaw ci wax waaw parce que parce que parce que benn des amagul preuve bu mën Ousmane Sonko pour ñu

parce que bu fekkente ne audio yi nga xamantene MC Niass jox nako doyen de juge dañ ci deglu ay baatu adja muy wax yenn ni mhm. dinañ ko wat mu tok ne ko mais audio yi lii ak li ya ko wax yow la wala det motax mhm. doyen de juge faw mu convoquer wat Adji sar pour deglu wat ko mhm. parce que diggante bi capitaine Touré jaar na fa MC Niass jaar na fa te dina am ñeneen ñu fa jaara motax tax faw mu wat Adji sar pour deglu ko maintenant bu démé ba gis ni kat fiñ toni amagul firnde bu ñu yobbu dossier bi pour que ñu atté ko non li rek mo fa seuss mais est ce que dina am parce que ma ngi leen di wax ni du yombé non de parce que dama ko gis ci dossier Karim Wade gis ko ci Khalifa Sall même bu ñu amee preuve koy setal pour ñu yeewu nii rek jël noo lieu rek tegal ko ci plateau il va falloir que ngeen xeex bu baax a baax muy côté avocat yi di côté Pastef mm-hmm. il faut que ñu xeex de il faut que ñu mën a tout le combat pour que seen leader am non-lieu mhm. ñu bañ ko écarter ci élection mu bañ a bokk mën a bokk ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy ay ay ay mhm. donc loolu am na ci mhm. ensuite beneen mbir bi nga xamante ne euh, bëggoon naa ci évoquer mooy euh, lu jëm ci wàllum vidéo bi nga xamante ne ñu ngi koy wax xam nga nee nañu am na ñaari am na vidéo buy circuler boo xamante ne dañ ciy wane euh, Ousmane Sonko ak yi ni mel léegi man li ma jaaxal ci vidéo bi ñaari mbir la

caméra yi doxul woon dafa paanoon deuxièmement enregistrement yi fi war a jël image yi dafa amoon défaillance technique jëlul dara enregistré dara donc léegi euh, sur la base de ça kon fan la ñu mën a jëlee vidéo man loolu lu ma jaaxal la te maa ngi samp laaj bi deuxième question bi keroog ñu ngi may fàttale xaw ma ci mhm. ban jotaay nii Ndeye Khady Ndiaye waxoon na ne Adji Sarr portable bu simple la yoroon mhm. donc fan la war a mën a filmer Ousmane Sonko ba am vidéo am lu ma jaaxal la mhm. waaw journaliste bi véhiculé loolu. Mhm. mi nga xam ne mi ngi wër déjà am na benn audio bu génn moom nee na dafa gis Adji Sarr ibbil Ousmane Sonko ndax nee na li ngay gis ci biir vidéo bi Adji Sarr moo ibbil Ousmane Sonko Ousmane Sonko dugg ñëw toog ci lal bi. Mhm. Mhm. nee na vidéo bi looloo moo ci am. nee na Ousmane Sonko jóg dugg ci biir euh, euh, salle de bain bi sangu génn ñëwaat ci kaw lal bi. ñu maase ko mu dugg ci jacuzzi bi benn vidéo boobu noonu ban caméra moo nekkoon di tourner di jël mu dem fii mhm. ñëw fii ñëwaat fee te benn journaliste moo ko wax te journaliste bi wax loolu nee na moom eh, vidéo bi dañ ko ko jox mu am ko ci téléphone am ba jot na ko wan yaayam mhm. par benn yenn parti jot na ko jot na koo wan yaayam tudduma tuub jot na koo wan yaayam mhm. même journaliste bi nee na moom dañoo nangu vidéo bi ci moom ci même audio bi donc yooyu ay contradiction la donc man je me suis dit dañuy xool ñi nga xam ne dañu vulnérable ñi nga xamné mo comme ni def aji saax profiter ci ñom jox leen xaalis ne leen génneel wax ndàngam ak sang mhm. parce que ay wax yo xam dafa am incohérence yu yu yu ki la mhm. ban journaliste may am preuve bu ñu amone vidéo sax yow confrontation bi wala da nga ko aji sar ba mu démé ci juge ba est-ce que waru ko wona a ba mu amé vidéo bobu non preuve boobu ñuy wax parce que mëno dem avec les mains vides aussi aussi c'est moom Momo Cissé mi koy wax sax ay waxam de de démb ak tey dafa am ay contradictions. bu baax ci mm-hmm. mon frère xamante nañ bu baax après bu baax li nga wax te damay profiter ci loolu comme tudd nga turam euh, je lui dis que moom xam ni man ne yoru dara. <laughs> yow moom moo ni <laughs> man yoru dara. <laughs> dara il faut que donc donc man li ma puisque gendarme yi ñoom nee des agents assermentés nga xam ne wax ça fait foi jusqu'à inscription de faux ñoom nee nañu ba ñu demee Sweet Beauté dañoo caméra yi dañoo mhm. et que enregistrement jël woon dara parce que dafa amoon défiance technique. Mhm. deuxième chose ñun ñëpp xam même institut de beauté bu amee caméra de surveillance caméra de surveillance li ci loi bi wax mooy ci couloir yi lañ ko war a installé mais pas ci ay bureau jàmbur biir bureau balaa nga ciy def sax bindal ne attention vidéo surveillance loolu tam beneen exigence la bu loi bi fixé mhm. caméra de surveillance muy entreprise muy société muy fu ñu ko mënte installé ci couloir yi lañ ko war def mais pas ci biir bureau yi mhm. léegi gendarme yi ñoom nee nañu caméra yi dañ paanoon enregistrement jëlul muy benn te ñun ñëpp xam nañ ne même bu doon institut de beauté yi am caméra yi xam nga caméra yi du biir sax fi ñuy maaseel dañ koy dugal ah. <laughs> donc ku ñu gëm mu gëm loo ni moo jël foofu noonu tamit mën mën ta jàll vous êtes intelligent Ndeye Khady Ndiaye nee na Adji Sarr portable bu simple la yoroon mhm. waa léegi kon vidéo boobu fan lañ ko filmé mhm. fan lañ ko jëlee dëgg la Ousmane Sonko bu gisoon taxaw ku koy entrée bi ba bu muy ñëw bay dugg si di def yooyu yëpp mu gis ne kii ñu ngi koy filmé di ko jël mhm. mais mais xanaa du du toog di accepté loolu donc man vidéo bi yegg de waaye man laaj yi man yii moo moo ci tee sama xel moo tax ah, man jëni moo tax teesu teesu montage bi ñuy wax beneen mbir <laughs> def nañ seen liggéey. gis nga ñi ñi ñi ñi yaakaar ni vidéo boobu noonu mën naa tax ñu condamné wala ñu àtte Ousmane Sonko dañu réer benn bi bu ñu ko indee. Mhm. doyen des juges am na pouvoir demander lu ñu tuddee expertise. bu ko mhm. defalit avocat Ousmane Sonko am nañu sañ-sañu demandé ko ñu def ci expertise maanaam woo ñu xarañ ci wàll gi. ñu mhm. xool ndax li vidéo dëggantaan la wala montage. c'est important ah, mais am na beneen laaj it boo xamee ne mën naa mën naa am en en 30 mooy. maanaam même su fekkee ne que vidéo bi am Mm-hmm. est-ce que vidéo bi ñoom dañ cee wax ne am na moment bu ñuy violé Adji Sarr. <laughs> moom moo leeral na ko. loolu mooy fausse morale <laughs> wax na ko ci audio bi ma dégg parce que nee na ci fin bi xale bu góor sax dafa dem ba yaramam tàng ci la forcé xale bi. daal di reetaan. nit nga ne journaliste nga nga mën a toog. lii nga xam ne mën na laa topp ci say liiñe ah, say sët sëtaar say doomi doomaat. Mm-hmm. ñu ne lan nga waxoon ci moment boobu. Mm-hmm. moom wax na ko déjà moom rek ci audio boobu wax na ko. li may daanelee mooy. gis nga dossier la mhm. justice sénégalaise gis nga réputation réputation justice sénégalaise pour 100 mhm. ans Il di ñëw. Mhm. dafa dépendre ci dossier bi. ndax lepp luñ ci mënti jël. les générations futures. génération générations di ñëw ak histoire. l'histoire retiendra et racontera. l'histoire retiendra et racontera que atum deux sangam. ci loxoy procureur sangam ak juge sangam sangam jot nañu dossier sangam boo xamante ne kii dafa ne dañ ko violé te amuñu preuve bu wane ni violé nañ ko yóbbu nañ ko soit ñu atte ko wala condamné nañ ko. ak donc pour téeméer ci nguur voilà mi ngi noonu donc ci cent yi yii di ñëw réputation justice sénégalaise yëpp dafa aju ci dossier bi muy benn. Mhm. ñaareelu mbir bi tamit mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàll gi. Mhm. régime boo fi gis tôt ou tard day jeex. dëgg nga Sénégal tey booy xool secteurs yi ñu gën a critiquer justice ci la bokk. Mhm. bu ñu bëggee nag ji critique yooyu dañ parce que ce sont des critiques fondées. oui Vous mmh. dee que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais.